département de Bambey walu askan wi muy PDS ci département de Bambey ma tudd leen l'opposition radicale ñooñu nga xamne ñom ñoom li leen ñor moy cohabitation Manam fexé ba am euh, majorité ci pencu ndaw réew mi ëpp fa ay ndaw yi leen fa téwal pour mëna wañ loxo président pour mën ko galancor ba li ñu bëgg mom président aw ci lool mo leen tax amna opposition bo xamne c'est une opposition modérée kooku man mën naa ne tête de bi c'est Aar Sénégal ñoom li leen tax a jóg mooy fexe ba ñu yóbbu ay ndaw réew mi ci pencu askan wi ndaw réew yoo xam ne dañ xam lan moo leen fa taxat nekk ñoom ci loolu indi nañ benn téere ñu tuddee ko charte du législateur charte euh, du député nga xam ne député bu ñëwee foofu dina lan moo ko tax jóg aw ci nga xam ne ay xeex ak xuloo ak saagante yi am ci assemblée nationale dina fa jeex tàkk mu am beneen wàll mooy euh, le parti au pouvoir ñooñu nga xam ne ñoom dañu bëgg ñoom majorité pour mën a yeggali seen liggéey ci deux ans yi leen dese mën a yeggali réalisation yi nga xamante ne tàmbali nañ ko moo tax ñu bëgg majorité loolu la ñu wax muy ñetti pàcc man nag euh, balaa may ñëw ci ñetteelu pàcc boobu am na solo lu ma ci bëgg wax mais balaa may ñëw dinaa xamal ne ñun waa làmbaay man dama jiite loo xamante ne bii dafa indi beneen beneen ñeenteelu pàcc ñu koy wax Euh, une, quatrième voie Voilà. Euh, li euh, l'ambaye d'abord man dama l'ambaye. Nous làmbaay nous l'ambaye. ci lépp dama bëgg wa lambay parce que chaque élection ñu dem ci def li ñu def ba majorité président ñun suñuy soxla kenn waxu ci kenn defu ci kenn élection yi dama bëgg jiital seen bopp maanaam ñu ne làmbaay d'abord bañ a dem ci benn bu dul bannièreu làmbaay voter làmbaay mooy vote pour ñu xam gëdd làmbaay xam li làmbaay manqué euh, taxaw ci saafara ko voilà sëñ euh, Birima balaa ñuy avancé bu baax a ñu taxaw foofu ginaaw bi nga décliné acteurs yi nga xamante ni ñoo seet élection législative yi nga xam ne ñoom la ñuy dëgmal ak enjeu yi nga xam ne moom la élection législative am nga xam ne ci la ñuy tànn député yi nga xam ne ñooy taxawal askan wi ci assemblée nationale euh, député yi nga xam ne ñooy taxawal askan wi ci assemblée nationale ñu gis ne opposition mu ngi fi waaye tamit parti au pouvoir mu ngi fi yawit it nga gis ne euh, tey am nga benn mouvement boo taxawal dippee ko làmbaay d'abord ñu bëggoon xam exactement yow ci ci ci ban ci ban côté ngay xëcc waa làmbaay tey ji ci élection yi est-ce que da nga leen di woo ci opposition bi wala da nga leen di confirmer pour ñu voteel euh, parti au pouvoir wala da nga leen di woo ci leneen. waaw jërëjëf Adama question bu am solo ngoog waaw man li may oo làmbaay mooy ci seen njariñ te xam nañ ko defe naa. lambaay lambaay kenn ëpp ko fulla kenn ëpp ko fayda bu dee fulla ak fayda jot na pour ñu wanee ko ci loolu laa leen di oo mooy ñu xool lan mooy njariñu làmbaay ñu def ci ñu dox ci wax ci loolu mooy lan mooy élection yi di ñëw làmbaay làmbaay bu ñu xëyee le 31 juillet ku si na nga yor sa carte électeur na nga préparé wu solo ba rafet sañse dem fi nga war a watee nga dugg boo duggee defal li ku war a wate di def jëlal say xob jël sa enveloppe dugg sa mbañ gàcce waaye bo duggee ci mbañ gàcce mi xob yooyu nga jël yépp muy ay bulletin de vote yu yu candidat yi moom boxam ko nga dugal ko ci poubelle bi sa enveloppe bi nga defar ko ba mu rafet dugal làmm ñi ci biir boo ñëwee ba ci urne bi mooy kees gi nga war a nga ko ci nga ci enveloppe bu amul dara loolu mooy firnde ne làmbaay ken defu fi dara làmbaay amul dara suñu télé bi ñuy jooy ay at télé bi jógee ndangal ma jaar Lambaye dem kër Samba Kane mi ngi nii camion chinois yi ñu commencé waat di ci aw te aw nañ ci lu mat juróomi at ñu pare ci waccal ñu ko noonu commencé waat nañ ci di ci aw te defar ko ñun yaakaaruñ ko. Euh, lii di autoroute Ila bi ñu ko wax autoroute Thiès Touba manifesté nañ ci ñu jàpp ay doomu Lambaye xoqatal leen ci foofu la lépp doxee tàbbi àjjana autoroute bi suñu suuf la ñu jël jël. utiliser suñu tëli yàq suñu latérite bi ba mu ba na yaxeet ñu ngi ñu tëj ràpp ferme ñu ngi ñu tëj ràpp ci autoroute bi amuñu fu ñu fu ñu fu ñu ubbeekoo ci autoroute bi boo jogee dakaar di ñëw Lambaay boo wàccul xombol do da wàcc xombol jalaat oto pour mën a ñëw ndàngal ma ñëw Lambaay boo jogee Touba di ñëw Lambaay boo wàccul Bambey xombol ngay wàcc ñun nag dañu bëgg ñu ñu ci autoroute bi Lambaay am fu ñu wàccee di Lambaye Dakar Lambaye ci Touba Lambaye ci bi loolu lañ bëgg pour ñu bëgg il faut ñu jël suñu responsabilité mooy élection yi ñu def wax vote blanc seen xob woowu boo leen ko jëlee xob yooyu yëpp boo leen ko jëlee dugal ko ci kees mbalit mi ngeen jël enveloppe bi noonu bu mu am dara ngeen dugal ko ci biir euh, kees gi ñoom bu ñuy wàññi bu ñu gisee Lambaye Vous enveloppe amul dara ñu ne loolu lañ fi def dara pour ñu mën a xam ñun suñu taxawaay mën a euh, sumb ay waxtaan ak askan wi mën a saafara ci ni mu gën a gaawee loolu ma wax ne moo manqué Lambaye fàtte woon naa lycée bi suñu lycée baa ngi nii nekk na lycée depuis 2020 mais actuellement day amuñu ay salle de classe am nañ proviseur am censeur am intendant mais amuñu bloc administratif yoo xamante ni ñooñu mën nañ ci dugg def seen liggéey ni mu waree ren gis ngeen entrant sixième bi ak CFEE bi ni mu demee dafa am taux de réussite boo xamante ni dafa am doole. xale yi war a dem sixième at at mii di ñëw dañoo bëri te loolu xam naa ne xel en tant que parent d'élève du ñu xaj ci biir lycée bi ñu ngi sàkku tamit ci ci EF bi inspecteur chargé de l'éducation à la formation bu département Bambey nekko soxla nañ beneen CM de proximité CM boobu ñu ngi ko soxla fii ñuy wax Mbexe pour ñu mën a wàññi euh, nit ñi ci lycée bi. mën leen yóbbu foofu lycée bi nooyu tuuti ñu defal ñu fa ay classes yu bees defal ñu fa bloc administratif loolu aussi bëgg na bokk na ci li ñuy xeex li ñuy li ñuy sàkk ci nguur gi ba tax ñu am position bi ñu am lambaay d'abord voter un bulletin blanc dugalal sa enveloppe bu amul dara ci biir kees gi wane ne yow am na lu la naqari am na lu la metti dañ laa fàtte voilà jërëjëf ma leeral yooyu am na solo waaye su ma déggee sa wax bu baax dafa mel ni dangay ngay woo askanu làmbaay mhm. ci ñu neenal politiciens yi maanaam mhm. bañ a benn politicien mhm. muy opposition muy euh, parti au pouvoir te sànq bi ngay présenté wu su déggee bu baax yow day mel ni membre Benno Bokk Yaakaar nga bokk léegi man nag li ma xaw a jaaxal mooy naka nga mën a bokkee ci Benno Bokk Yaakaar ba pare ngay woo waa làmbaay pour ñu neenal politiciens yi pour ñu bañ a voté Benno Bokk Yaakaar loolu lan moo ko waral tey waaw xam nga loolu yomb na expliquer parce que ñëpp a xam ne politique gu Sénégal ni muy demee actuellement am na politiciens yu gëm seen bopp yuy doxal seen askan. mais am na politiciens yu bëri yoo xamante ne seen bopp moo leen tax a jóg te man doxuma ci loolu man sama askan moo ma tax a jóg promotion politique utuma ko ci luy gaañ sama askan. boo xoolee euh, waa bennoo gis naa leen fii ñu dajaloo tenor politique yëpp dajaloo ci seen euh, daje bi ñu doon daje euh, candidat département bi bi nekk ci liste Benno mais di nga xamné politiques, dañoo mais seen xol wul dañoo ngir préserver intérêt politique seen poste politique am mais loolu est-ce que ñooñu askan moo leen tax man loolu duma ci bi mais département de Bambey respecté wuñu parti allié AFP nag moo ci gën rawati dafa AFP lay bañ a gis. te comme ni AFP na ci allié yi sincère yi président Macky gis ngeen taxawaay Moustapha Niass ñëpp dañ naan dafa sey sax ndax comportement am ndax vraiment loyauté bi mu jox président Macky Sall ak vraiment dëggu gi mu dëggu ci àndoog moom ñëpp naan seen parti bi dafa sey te l'AFP c'est c'est un grand parti c'est une grande formation politique boo xamante ne bi euh, dafa structuré teew fépp ci Sénégal waaye nag suñu loyauté moo tax ñu am comportement bi ñu am mais au niveau du département de Bambey fay ñu ñu loolu boo xoolee député yi ñu tànn député yëpp AF APR lañ bokk APR lañ bokk. Pourtant, l'AFP était bien désignée de faire partie de ses députés, d'être titulaire. La personne désignée était moi-même qui vous parle. Mais nous autre dara, bolé ci dara. j'ai essayé de me rapprocher de gomme pour expliquer quoi, pour voir ko suñu nous, suñu suñu vision ak suñu gis-gis ci mbir euh, directeur de cabinet de ma Bilal Fall Babacar Ndiaye bi président conseil départemental de ma mais musuma pas recevoir mais nak dafa jot ñun ñu jël suñu responsabilité modi euh, man dama japp né Mor Ngom cohabitation bi nga xamné ne ñun dañ ko bañ parti au pouvoir euh, la coalition de la mouvance présidentielle daf ko bañ mom cohabitation bobu lay liguel ci département bi Mor Ngom moom lay liguel ndax dafa créer ay frustré au niveau de Ngoy créer ay frustré au niveau de Ndondol créer ay frustré au niveau de Lambaye te gëm naa ne frustré yoy bu ñu sanction Mor Ngom le principal responsable donc te lolou waru ko président Macky Sall dit, ko loolu mais créé nako parce que dafa jël lépp amaaylo conseil départemental qui était plus euh, capable capable de diriger ce conseil départemental vu son expérience vu son cursus politique mais def ko daf ko jox waxuma ki ki ko yor mënu ko yor yor mais dafa am ku ko gën a té te ñëpp xam Pape Diouf la bokuma ak parti c'est un allié qui a un parti qui a un parti politique qui a un vécu politique Il la ko fi ne ñuk dem jël. ku dëkk ndàngal ma jox ko conseil départemental bi xoolal conseil départemental bureau bi ñan ñoo fa nekk euh, ci parti allié yi poste yi am importance yëpp APR moo ko jël ñu ñëw ci élection législative yi poste yi am euh, député yëpp APR lañ bokk loolu luy ndeyam mais ñun golo du bay baabu dunde fulla ak fayda bi nga xam ne ci lañ ma yar ci laa judd man doomu lambaay laa damay bañ du man nangu ku ma ñàkkal fayda moo tax ma oote làmbaay d'abord as ñun intérêt Lambaye moo ñu tax a jóg intérêt askanu Lambaye moo ñu tax a jóg te li ñuy oo waa Lambaye mooy ñu voté bulletin blanc maanaam ñu wan ginnaaw parti yi yëpp ak ñu leen fi teewul ci département parce que seen intérêt bopp moo leen tax a jog ñu dox ci intérêt Lambaye mooy seen xob woo yooyu ngeen dajale ko dugal ko ci poubelle yi enveloppe yi ngeen dugal ko noonu ci kees gi bu mu am dara ngeen dugal laam ñu ba mu rafet dugal ko noonu ci kees bu mu am dara wane suñu naqar wan nguur gi ne teguñu fenn Lambaye ngir ñu mën a am yaakaar ne ëllëg dinañ ñu waxtaan pour ñu faj suñu suñu suñu jàngoro mooy li ñu manqué ci dëkk bi voilà jërëjëf